Wow. لولا أن هدانا الله هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله جزى الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وصفعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله جل الله عنا شيخنا وسجدنا وملاغنا وأستاذنا وجدنا وملغنا ومولانا شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا بآمين ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسيل كاسف الغمم ورضي الله عن شيخ التجاني الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والتين ومن تعلق بالأبيان قائمة سب علينا إلهي أبحر العزم وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الإيمان كلهم فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم كما أصولي وأحباب أصولهم عممهم ربي تعمما بذي الحكم ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم وما نؤديه من الأذكار جملتها فاقبل لنا به يا فارج الهمم ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فنحن في ضيق قليل التراكم فها غريبا كما في البدء يا حير الراحم إلهي فاجعل أهلنا أهل مرمة وأهل اتباع سنة في التراحم نعض عليها بالنواجذ مثل ما بي قال في النساء نذرة هاشم نعوذ بالله من سر الكفير ومن سر النصارى ومن سر صلاتهم ومن وزير وجن ثم ذي قدم فم وعين وعين وصياطين وظالم ومنافق وذي حصد ومن تفسق يا رحمن نجنا من النصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك فقوف فخذ بيدي يا جائل الحال بين الكيف والنون إلهي فاحفظ والدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيقة كذلك إخوان الإلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأبكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من خير سنيتي مع الآل والأصحاب ما ضر شارق وما قلق يا إلهي لستتي بحق يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نور بصائر عبدك المتضلل لا يبطلن الله جل جلاله ببلية الإعلان عن ذاك الودي بسر تباركت إلهي من الدار إلى الدار وطاليت إلهي من الدار إلى الدار وتقدست إلهي من الدار الأبار وأنت رب ورب كل شيء لا إله إلا أنت يا أكرم الأكرمين والفقاح بالخيرات يا رب اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا ولعبادك الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقتم لما سبق نصر أقدامه والذي أصدق المستقيم على آله أقدامه incha allah julli jot na fare asalaatu fatiha. Pape Mansour la bu maam Habib. moo mel ni ñaan bi dal na xel ndax appel bii ma doon jël léegi am na mbooloo yi takku yi fi ñëw Mouhamadul Bachir bu Serigne Habib Gaye bu Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour mi ngi ci jataay bi kenn ku ne xam na sëñ Habib Gueye ak sëñ moom nag mu nekk bras droit bis bi bokk ci ñi ko tuddee bis bi bokk ci ñi ko tuddee généralu Habib Gueye muy Mouhamed Diop honorable bi nii ñun dañ koy jiitu sax ndax dañoo waroon dem ba kër mais yi li mu yëg ni moo ñu moo tax bi ko madame yëgalee rek mu bàyyi lépp ñëw boole jeg indi alalam def ci li nga bëgg ci ndombal tànk nag fay biram yaa ko xam yal na la yàlla def lu kawe sa njort yal na nga génn rek sa téléphone sa Macky Sall wol ñaanal ko mu ko yàlla jox ndax yàgg naa dégg turam ak mbaaxam ci maam dara wëli ñoom soxna yu tedd yëpp tabarakallah ñu ngi soxla yu tedd yi fi nekk ñoom ak bët ñoom soxna Yaasin ñoom soxna Ramata Si ñu ngi ñëpp jaam ñëpp waaye ñu xam ni eh ku fi teew yàlla mën na faj sa aajo bu nekk ci ndax teewaay bi wali man la ko waral muy wàllu yàlla di doomu Seex Seydi Abubakar Si di sëñ Maam Seex Alxaaji Malik nekkoon xalifa Seex Seydi Ahmad Tijaan di xalifa Barke ak wa Sana tabarakallah muy Seex Seydi Mahamadul Mansuur kon am na yaakaar ni lépp ndax ku bañ xeeñ parfum bu jege nit tey jaay parfum mu mel ni kon lii sëñ moom sala ko waral waaye nag ak magam bu tedd ba xalifa bu tedd ba te di Seex Seydi Mahamadul Mustafa Si Jamil yàlla yàlla yokk seen leer te tàcc seen barke kon mu mel ni lii jaral li muy wax ne moo fekk ndax groupe whatsapp bi pour ñu bokk ñu ko ñi bokk ci groupe bi xam ne groupe bi bokku ko ñeneen groupe yi. groupe yi ñu ngi jàngale alxuraan ci biir. ñu ngi jàngale. ci biir ñu ngi daan na leeral leen ci biir ndax am na ustaas bu yor wàllu askan yi am na ustaas bu yor wàllu xilaaw sax am na ustaas bu yor wàllu leeral leen ci biir waaye am na kuy traité ci biir ndax loolu la yàlla suturaal bi ci biir am na ñoo xam ne fu ñu bokk ku traité tegaat ci yoon kon ñu xam ni loolu la yàlla dogal mu jaar ci loxo Babacar Diarra ñëpp ñu bokk ko muy bis sa seen Modou Mansour kon nag waa groupe bi. yëpp nañu bàyyi xel gën a lancé si góor bi ñu ñëw nag ñi nga ànd ak waa spécial 4 mai bu Mawlaay Seydi Ahmed Tidiane bi yëmbal ñoom lañu àndal. na ci ñëpp def nii. àndal ñoom ay na bi ñu may ñu seen daayira ñu jox ñu ko fi ñu ñëw ci xadaara bi ànd ak tamit am waa ànd taxawu suñu tariqa tey ca yëmbal ak li ko wër ñu fas yéene ak ñoom tam am seen xarit waaw le 14 janvier mooy fële ci ndox incha allah ndax bu neex yàlla yooyu yëpp Mawlaay Abdoulaye Ndiaye Tidiane mooy nekk ci bopp xadara bi loolu nag sant yàlla rek raa nga dog rek wax nga ba bële yaa ngi wax ci xam-xam yéen bi yaa ngi martali asmaa bi mais ndax groupe bi am na social social fi la fekk fi la fekk baax lutte sociale ba ñu si moom da lay jaaxal. am na social social. social ci bépp côté. fii ñu demee fi ne. xam nañ wàllu yi mu ne. waxuma waxuma social damay liggéey mais fexe ba nit ki jàpp ci dara. damay loolu fii la tëddee ci dund xam nga bu ñu fàtte ni wàllu yi mu ne. ci anam bi doole tëddee. ay nitam ci loolu la lay tëdd. groupe bi képp ci képp ku ñu bokk rek nekk nga bu tamit. damay faral gis yenn saa yi jàngkat feebar ñoo koy waajal ñoo koy setal loolu yëpp ba xalaat nga ci am. loolu ak loolu ak sàggal ne képp ku sopp yonent bi. nga ne yonent bi tax ngay ngay def li ngay def. waaw soxla woon. waaw ah. gis naa gars yi social ñoo xam ay jànkuwut siiw la ñuy ne. non non ñu laaj si si si dina laajal. siiw siiw taxul li nekk ci farata. Ah. xam nga li farata. dafa dara leeral na xam nga li farata yonent bi. xam nga li farata. Ah. Cheikh Tidiane. kon ñi bëgg Seydina Mouhamed ban message nga leen di jox. ñii way yonent bi waaw ñii way yonent bi ban message nga leen di jox. ah ñoo xam ne dañuy bëgg yonent bi. <laughs> boo xoolee yéen a conformant yéen a. damay damay damay wuute. yonent bi doon doxee waaw loolu ak ña koy def ñooñu duñ ci am daal mais ñi def ci tag yoon bi yàlla loolu du ñàkk dara damay na sax ma wax may la te lépp lu ñu tuddee la wax te sëñ Mansour tax laa jóg boobu fooy dox ci àdduna da nga bàyyi sa dox kon groupe bi na wax suñu jàppee mën nañ taxaw ci réseaux sociaux yi wax ne soppee daara yi ñoom social kenn mënu leen ci bu ñu jëlul pay leen ci ci benn anam ci bépp anam la sëriñ lañ jël ci bépp anam ah. dama la bëgg wax ne tooluwaay sëñ Mansour ah. fay doom ah. mooy dasal fàtt xaw ma dégg nga ma xaw ma dégg non man moom sama dégg-dégg sore tolluwaayam moom Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour mooy def kastalu faat mooy def jeexital di nandal ay taalibam ci loolu moo tax foo fekk taalibam kenn du ko yëg moo tax nit ñi moo tax nit ñi xam nga dafa am nit ñi réer wàllu ji ak dëggoom ci taalibe taalibe xëy na boppam kon jaagir la jaagir du jaagir dama bokk ci biir rek wax nga bokk ci. wa laysa nafu ala bin bi ah, la amali. wa taabi an sunnatal mu'taqidah. mais dama jaaxal daal bari na ñu koy waxtu duñ doxee loolu. waaw loolu doom la. ñu yàlla génne nañu ci lan boobu. Ah, alhamdulilah ñun ñun sunna Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yooyu. waaye sunna Cheikh Sidi Hadji Malick Serigne Daw si man. kon nga xam ni tabarakallah macha allah kontaan nañu ci ñëpp kontaan nañu ci ñëpp. ne ñëpp xam ne fii kenn du fi jógee am bakkaar waaye kenn du fi jógee yàlla di indi dégg àjjana direct incha allah. balaa ñuy daaneel ci wax dama leen yóbbul bis ndax ñoo si am amit suñu émission bi bu ñu daaneel dañu am yóbbul bis nga may ñu rek loo xam ne dañ ko mën a tëj. yóbbul la bis passé wu lu dul yéen ngeen li ngeen liggéey ngeen teg ci ci dëgg. teg ko ci fata lu ngeen di enregistré muy dëgg lu ngeen di teg ci télé bi ñu ngi ci ko a muy dëgg suñu liggéey du loolu ñu ngi ku woote war na la mën a wuyu loolu laa wax ne ah. xam nga am na loo xam si ni dina ko génne mu ñaaw bu leen léegi lii suñu génne ñaaw bu leen ko génne ah. déedéet ah. parce que bëri na mu defar réseaux sociaux boo ko defar waaye bëri yàgg dafa am benn nit bu ma bu ma sabal du ma bàyyi ma leer li ma ko doon sabal am ma wax moom laaj am nañ kilifa ñu ko jox. am benn kilifa woo ma ci. yàlla nu muy waxee man ko xëy na man ko bal maa xamante ni kilifa nga mais ma yomal la de. stabilisateur nan la loo ma cee si nga xamante ne seen ma ne. exactement am na lu bëgg a laaj. parce que nag attention man ah. dama am benn ministre man maa ko sabar sama dëkk. Ah. indi moo ko fa la. Ah. dañ ko fekk mën a sabar ñoo ko sabar. ci kilifa yi am benn kilifa woo ma di am na ñuy wax ma ne ko woo ma ne ko ma yow ma wedd jàngaloo ma gindiwoo ma exactement wax am am na bëgg laaj lu ndaw lan moo war a léegi ñu xool fekk si ñu xool fay xar trois amul benn sédagement yoo xam ne boo wéetee ci seen doom bi taraxe bi te léegi di yàgg un deux trois bu ñu sëñ bi wax boo xëyee nga doon sa waaw léegi ay lan la wax mu nekk Tijaan. waaw léegi waaw. Tijaan rek mais la moo tax léegi ñu ngi xool fàtte changement la amul fenn foo xam ne. bu la sëñ nee jëf bu ne waaw nga ne jëf doog nga sarax te léegi bu la sëñ nee waaw nga ne jëf ñu doog nga sarax. bu fàtte ni dafa am ay lu ñuy wax sympétiment. waaw sympétiment mooy ki bëgg a bokk te bokkagul wala ko ci seen i sëñ. mais ki nga dafa bokk. ci la xalaat lool. ah jërëjëf. ñoom mu doon di képp koo gis muy ŋàññi kilifa yi. mais ban tuwaay ba El Hadj Maane wax su loolu. dégg nga dama laaj. waaw. ñun ba maa ngi ñëw. waaw mu am li lan kii kaw li dem li mën bëxam. waaw ndax si mu fii kat bi ñu ko doon taxaw. waaw parce que tey bokkul ak day màggal waxu kilifa. waaye bokkul ba tey nii boo doon bokkul ak yow dafa mais maa ngi ñëw. kon su ko defee noonu la baax nga xam naa li war a joxe niveau bi. waaye ñëw ñu woon sax pour. def question réponse mais dañu da fekkee ni ñëpp ñun lépp lu ñu bokk lépp lu ñu bokk day taxu ci laaj parce que ñun dëgg rek ñu ñor dëgg nga fi dama leer dëgg rek ñu ñor leneen lu dul dëgg ñëw ndax ñun suñu bët bi ginnaaw yàlla ginnaaw yoon tam kenn feesu pour seex yi ndax mooy ci jàng waaye kenn feesu pour sëriñ man sëriñ man suba dara ji

Mawlaaye jërëjëf kon mu mel ni. ñoo ngi jégalu ñëpp nag suñu liggéey rek la ñu nekk fas yéene ñu woon déporté ci benn wax mais comme suñu liggéey nu mu laajte dañ koy def mais duñu xool question bu ñu war a laaj bu ñu war a laaj. lu ñëw suñu xel ñu war ko laaj ngir doomu aadama yi gindeeku dañ ko laaj ndax suñu liggéey la ci la ñuy yaakaare Gampe kenn ku ne ci la nga yaakaare Gampe ñun ci lañ ko yaakaare kenn ku ne nag fi ngay fay ko ñun fii la ñuy fay ko suñu liggéey dafa am lu mu laaj kon ñoo ngi jégalu ñëpp moo naa xam naa lan ñoo ba sa kër seet si incha allah rabbi day oustaz xam naa ni programme bi sax mi ngi dem te oustaz war naa mën a jël mais ñu bëggoon xam ne kan mooy Serigne Mouhamadou Mansour waaw xam nga moom Serigne Mansour moom mooy ibnul xalifati sibtu maliki asman mooy doomi sëñ Ba mooy doomi sëñ Babacar di sëtu Alaaji Maalik ci cër. loolu doomu Seydi Hadji Malick doomu sëñ Babacar loolu rek. ci cër. waxuma rek de. su ma ni woon doomi sëñ Babacar sëtu Alaaji Maalik rek mën ngaa wax rek. mais sëñ Naar dàq na askan de. déet dégg nga ba tey ñu ne ma askan de est-ce que mën naa ca teg. léeg-léeg du jeex tubaab bi bi ma ne Ibnul Xalifa surtout Malick asku man. kon waxuma la doon na ko ci deret waxuma la doon na ko ci njullit mais dama ne la doon na ko ci cër léegi nag cër nit koy dagaanal boppam ba yàlla may la doy na rek ne Imam Alioune xëy na bu muy dagg askan su tombé woon ak ku mel ni Seydi El Hadji Malick du soo demee ca Ifham yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh bi ñu nekk yonent bi sa maam la dafa topp maami bi topp maami ba gis yonent bi ñi ko ndax sama askan juif laa ci mu ne ko juif nga àqal kon dëggal na askan askan baax na de nasabu taxsibu l ula bi xulaaw xaladat xaal nujuumaha dawzaaw askan baax na de فالعرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم askan baax na de waaye nag soo amee askan ba pare teg ca asxuman sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu dafa ni jultul mawaamiya jultul maana fi talabi cheikhan yurini simaanal wasli cafat mu ne leen maaxi nee na damaa songu àll bi di dox àll bi di wut sëriñ bu ma yóbbu ci maax yi foofu wax ju garaaw noonu newul sëriñ bu ma yóbbu ci yàlla. xam nga kii wax dafa xaw moo tax xam naa ne di leen arrangé dégg nga del sëñ Ba dafa xool ni damay wut sëriñ bu ma yóbbu ci yàlla. dina moom nga dégg am tasawuf fi di wax ni xam na ci yàlla moo gën a jafe xam yàlla liggéeyal nitu yàlla moo gën a yomb liggéeyal yàlla ndax yàlla mën nga ko liggéey ba yegg ci moom mu ne la gis sa moo taxoon na def ñaar taxoon ngay def demal ñu fay la mais seen Mansour nee na nitu yàlla même soo koy liggéey di ci des nit yàlla da lay fay. seen daaw kese ni man maa ngi wër ci àll bi di toog man nit ñi di wut sëriñ boo xam ni. sibaal muslimin maa ngi nee na bi ma duggee ci ci ci àll bi aw ma nee na ma génne sama alal ni ko bëgg ma fay la nga wutal ma sëriñ boo xam danaan ma rëkk ma ca maaxi Muhammadul Ahmadul maaxi mu ne saa deftu fii alamin yaxwi ila alamin yaxdi li di karamin waaye man daafiu daaxi gis nga moom moom seen ak bàyyi dajale la Cheikh Sëñ Mahmadul Mansour ñëw doon na ko ci moom muy jaar ju baax ko jaamu julli bay sëñ Mansour soo koy laajte El Hadj Abdou rek mënu mën a wax nee na sëñ Mansour mooy ki nga xam ne fuxtum xayrakum bil ilmi wa taalimi nitu yàlla bu mag moom duñ ko laajee mooy sëñ Mansour moom dafa ne sëñ Mansour daal mooy wëliw boo xam ne bi yàlla tegee lépp luy mbaax samp ci ab drapeau bi ko ñëpp di njëkkati dañoo fekk sëñ Mansour simpi ko su dee xam-xam simpi na ko. su dee wilaay sempi na ko su dee tabe sempi na ko su dee mën a sañse sempi na ko su dee mën a branché nit sempi na ko su na ko su dee xam-xam bu wóor te wér seen mënsul sempi na ko. gën a yëg ci moom mën a wax ci moom wax wane ni dund ko ak moom bëri na mais dafa am loo xam ne kenn du maye bopp loo ci lam waxtaan bi dafa am ko war a def mais du ñàkk émission spéciale xam nga si noonu su man dama ciy génn. gars yi bañ nañ ba xam ne sax suñ ne baaw te def te am seen mëntu lañ teg ndax damaa nàmp ci moom loo xam ne ba at biy tukki du ma ko gàllankoor. te su ma doxoon ba su ma ba ñu bett ma ma gàllankoor su ma ko gàllee meew lay doon du de leneen di nag sama benn rak sama xarit sama cousine di def tey anniversaire. ñu koy souhaité joyeux anniversaire di ko soxna Fat Jara di ko happy birthday to you di moom dafa ragal dafa ragal mbooloo tey mooy anniversaire am mu tombé bisu Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour bii yal na ci yàlla jaar defal lépp muy nit ku baax ànd ak doomu ndeyam di sama jaam di koy Rama Touré nga xam ne maa ko moom mais ñoo ngi leen di souhaité joyeux anniversaire di defee sëñ Moussa bisimilah. ëttu maam Cheikh. ëttu maam Cheikh. Fadlu. moo leen fi teewal. moom muy jigéenam di xaritam. jour 31 décembre. nee na jour 31 dañuy na dañuy maye deret am na ñu xamul de sang dañuy maye deret. day def maye deret. képp déglu leen. képp ku bëgg maye deret. maanaam ñu ñëw yëmbal soo maye ba pare dinañ la jox loolee. ndax dox li ñuy bañ mooy nga may dara dox ñaari baax nee na ci ngoon gi nee na am na xadratu jumaa bu mag bu nee na Mawlaay moo fay ne te man mii maa fay ne incha allah wax fas yéene waxtaani bonkal bi kon su ko defee waa ëttu Cheikh ñoo ngi leen ciy woo wax bi ci des mooy yéen waa Safé daale événement yi ñu wax yëpp maa ngi koy sàkku ci yéen na def nii ñu def délégation ma jiital leen ñu mën a dugg ci jat ñu mën a dugg incha allah information bi dinañ ko gën a jàllale su ko defee bis fekki Mawlaay bi sunul kenn it ñu def ko sagale ko Mawlaay kon incha allah na ko ñëpp bàyyi xel te ñoom peut être xam naa ci dara man toog naa nit woom billahi lazi laa ilaaha illa hu nit woom yow mais yow jàll yow man maa lay gis si TikTok bi ma ne ko waaw ah. mais yow waxtu rëy ji nga wax Abdou Aziz Ndiaye foo ko teg <laughs> ma ne ko ban wax laa ko waxati man li may wax ci wax yu rëy daa bare de Tijaan Cheikh Tijaan fekk si ma. ma ne ko man de wóor na ma man. fi ma toll ci sëñ Mansour bu ma ko soxla mukk te gisuma ko. te gëm naa ne ni mu la mel ci sëñ Mansour noonu la mel ci Cheikh Tidiane su toogee wér rek Cheikh Tidiane fekk si. loolu du cëru ñëpp. du cëru ñëpp kon su ko defee sëñ Ousmane kii nag moom papa moomu ko dénkoon. waaye daanaka dafa yomb léegi bàyyi waaw yooyu yëpp dinaa ko gérer après su ko defee su daanalee rek. ah. mu defee émission ma neexal dafa yor émission. biñ te te dinaa la wax benn su la neexee su leen neexee mën naa leen may fukki émission Alaaji Maalik naa koy tàmbalee ba ci Serigne Abdou Aziz Al Amin. ما في البرية كامل كمحمد مبرك ما يوالي na kasiilu ci ñaani ay waaj sayyidina Muhammad yaa sayyida al-kawnayn yaa alamal hudaa haada al-mutayyam fi himaaka nadiilu imaam al-baraaya يورك يا عيال لو صادفتني من لدنك عناية يا يوسف kolle nuuru taybata wan naxilu jamilu gaañi ku fi gën a bëgg sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hada rasulullah Muhammadul Amin sallallahu alayhi wa sallam والنبراس هدى هذا لكل العالمين الرسول مملك ويوال هذا الذي لدى العيون بكفه محمد الأمين لما بدت فوق القلوب تسير هذا الغمام دللته إلى مشام يرجل كان التقيل إلى الحبيب يقين هذا الذي شرفت دريح بجسمه مناهج إلى السبيل كاني مكن للمصطفى واج صلى الله عليه وسلم يا رب إني قد مدحت محمدا في سوادي وللمديح جدير يا مصطفى يا رب إننا قد مدحت محمدا يوم ينتمي في سوادي وللمديح الجدير صلى عليك الله يا لم الهدى ما حن مشتاق وصار الدليل شيخ سيدي احمد التياني بدأت بحمد الله مولاي احمد التياني مولد بدأت بحمد الله في كل لحظتي لما قصني نلت الاعالي رتبتي الشيخ أصلي على جدي أسلم دائما عليه فإنه يمصاي مبلغ منيتي مولاي أحمد تجانا أقول تحبسا شكرا لخالد نعمتي نعمة خالقي أقول تحبسا نعمة خالقي وشكرا بمالي قد أفاد وعمتي يا كان يا شيخ تجان ملفتكي رسول الله مكة مولاي أحمد التجان رضي الله تعالى سببنا امام مولاي احمد التجاني فجدي رسول الله طه محمد اي مام شيخنا انا احمد التجاني انا احمد التجاني انا احمد التجاني قدم الاجله سبب المام ما فرق لا يحاتان على رقاب كل عارف من نشأة دونه لآخر نفحتي شيخ سيدي أحمد التجامين فروحي تبد كل عارفين والأولياء والروح جدي تبد أهل النبوة قالي من بك مولاي شيخ سيدي أحمد التجاني ورسلنا كل ولي موخم كيف كان ببحرنا أمده بقدر ما له من فضيلتي فما عارف إلا ببابي واقف ومن فيدتي أمسى وليا للحدتي مولاي لي شيخ سيدي أحمد التجاني وما فعل من ذات النبي محمد تتلقى ذاتي دهر دون وسيلتي كما أتلقى كل فيد من أنبياء وأسل عليهم جميعا تحيتي خذ الغزوات مردية معاد وكلهم على هدره Africa. jin gi bare woon sax ay woy waruta am nag ay wax kii nag alxuraan lay jàng na ñëpp déglu te cellantu te ñëw di ko jox bismillah moom mi mooy ustaas bi jàngale zajaru xulub bi ma nga dëkk ca saabu bis bii rek moo tax mu ñëw ndax dafa am taxawaay bu am solo ci biir soppee borom daara ji ustaas bismillah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 يكونوا لهم عزا كلا وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد وانشقوا الأرض مثلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم كم جئتنا بتصونيف منمخة نفو العباد لوجه الله والخلم وكم رفعت منارات الشريعة كم أحييت سنة خير العرب والعجم wa kam rafa'ta manaarati tariqati kam saxayta fiihi al-waraa min wirdihi ashlimi alhamdulillahi lamma kunta malja'ana fitti wa taalika ya mawlaaya mu'tasimi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala ci teraanga bii mënu defal ndax heure bii lu toog di fàttaliku nit ku baax nitu yàlla bu tëdd am na koo xam ne guddi tey mooy premier guddi bu muy fanaan ci bàmmeel kon bàyyi gi ñu fi yàlla bàyyi ñu sunu fulla ñi demee du seen ñàkk fay am na koo xam ne tey lu bëri ñuy ku jëm ci fanaan ci marko xëy ñu war koo defee am na koo xam ne guddi ni tey lañ ko lañ ko war a njëkk a dugal bloc war ko opéré te ña ko fay dugal amul yaakaar ci moom moom mu ñàkk yaakaar ci boppam ñuy xaar yàlla pour def ma dina kon jàmm nekk sant yàlla war na di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi nu fekkee ba noppi ndax jàpp nañ ko lu yàgg li fi fàttu ci diggante bi kenn xamul ni mu toll ngay yaakaar bokk ci hôtesse bokk ci cotisation yëpp ci xel mu dal rek foog na ñu fekkee kon su yàlla may ñu fekkee te tal war nañ koo sant di julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa fii nu toog yàlla ubbi na pavillon wu sayyiduna muhammad yee mu jub mu war ko jëfi jàng amul luy jàll ci yàlla te du jaar ci moom waykat bi dafa ne ko fa anta baabullahi ay yumri atahu min gayrika laa yadxul yàlla benn buntu la am muy Seydina Muhammad cofeel bi nit ki di am ci moom ni mu toll noonu ngay toll ci yàlla Muhammad maa xam nga ni ñi gëm yàlla kese yem ci yàlla reconnaître seen gëm ñi gëm yonent bi rek yem ci yàlla reconnaître seen gëm yonent bi ak gëm ko moom ndax moom moo wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha allah su ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen ma man yonent bi kon fi def sànq ñu bokk ko ak moom xam nga Cheikh Tidiane yal na ko yàlla xayal ala ubbee waxtaan bi Cheikh Tidiane nag imaam Sukari ji wax na ci benn téeréem ne fu nu koy waxtaanee ku tudd beneen kàddu bu dul kàddu bàkkaar la li may wax mi ngi ci téere bu ñu naan ashurbu shaafi min al karamil kaafi ala jawaahiri maani fu nu koy waxtaanee wax lu sofaanu ci waxam bàkkaar la Cheikh Tidiane moo toll noonu ci yàlla moom yonent bi bokku benn tur ahmad la tudd yonent bi ahmad la tudd yéen ci àlla isa bi muy dem dafa ne sa yëti min baadi ismuhu ahmad Cheikh bi mu xamee ne nitu xadar nitu xëy bi la dund ak yonent bi ba xëy bu gënal ko ñëw ci kaw suuf yonent bi xam ne bu Cheikh Tidiane wàccu mbindéef yi du ñu texe mu digal ko mu wàcc turam la jël ko Cheikh Tidiane mu ñëw juddu indiwaat tur yonent bi moo tax sëñ Babacar Si nee na Cheikh Tidiane du doom du du sëtu yonent doomam la yonent bi ku jur lahu sharifun xalimun aynamul ulama laqad tabanna bihi xayrul bariyati sëñ Babacar Si nee na laqad ci dëgg-dëgg tabanna bii ci Cheikh Tidiane xayru bariyati gën jëm def mu yonent Ahmad boo ko déchiffré 53 la lay def ahad bii firi yàlla boo ko déchiffré 13 la lay jox 13 boo ko plissé ci 53 66 la lay jox mooy Allahu moo tax woykat bi li mu wax dafa am fu mu ko tënk maa lanaa fil kaw bi. siwa rahman wal Mustafa wa Cheikh Sidi Ahmed al Tidiane bi Chérif jeex na. fil kawni. damay ubbi de. non du duwal waaw béy boobu ngay wax rek. ma lana fil kawni siwa rahmani wal Mustafa wa mawlana Ahmed al Tidiane Cheikh Tidiane Serigne Babacar Sy Malick nee na Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yaa xutbu yaa xaws yaa mawlaaya yaa wadalu yaa muntaha amali billahi yaa xamaru jërëjëf du ma dagg nag nii laa mel damay bañ taataan ci li muy wax mu doon waxtaan bi te maa ngi doon ubbi nag Cheikh Tidiane foofu la toll ci yàlla moo tax attention sànq oustaz li tax ma toog muy jotaay bi jotaay yu Cheikh Tidiane la yoo xam ne duñ ko bàyyi mu jàll mukk xaaj Moustapha nee na Cheikh Al Hadj wax na ci xantaratu buur yi man xaala li cheikhihi lima lan yantafi lima taallama bi li tax ma ne duma bàyyi mu jàll mbooloo la te yaakaar naa ñu fi toog ñu bu dul taalibe Cheikh Tidiane gëm nañ ne ci seen xol bëgg na te Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh daan na wax naan bu ma teeloon xam cofeel ci Cheikh Tidiane nii lay mel du ma jël tarixa bi damay sopp Cheikh ba dem àjjana waaye garanti bi nekk ci jël tarixa bi moo doy waar moo tax mag ñëpp doo ko jël sëñ Babacar Si dañoo daje laaj ko luy gàccee Tidiane mu ne Tidiane gàcceem yow mu dem àjjana moom kot na loolay gàccee Tidiane mu ne Tidiane buy dem àjjana day xool ci ku ko neex ci famille mu yóbbaale wa yadxulu jannata daal Cheikh Al Hadj Malick xaawil wirti wa waalidun wa zawjatun kal wulti Oustaz Souley lii ñuy def sànq moo gën a foor ci tarixa bi xadaratul juma parce que xadaratul juma bu ñuy aouzu billahi min asheytan rajim nag yonent bi la nu bokkal balaa wasifa bu nu tollee ci juróom-ñaari këru jawharatul kamaal ci la mag ñi wax ne ci la yonent bi di teew xadaratul jumaa nag buñ naan auzu billahi la yonent bi di teew moo tax tarixa bi tarixa bu doy waar la Cheikh Tidiane li ko li ko yonent bi doon yëpp da koo pare ne julli julli ñaari rakk moo am ak julli ñett rakk ak julli ñeent rakk mooy wasifa laazim ak xadaratul jumaa julli ñett rakk mooy laazim moom lañ pare ñëw timis astaghfirullah téeméer muy benn rakk salaatul fatiha téeméer muy ñaari rakk laa ilaha illallah téeméer muy ñett rakk ñu pare ñëw ko timis julli ñeent rakk tisbaar a fi am takkusaan ak gewe Cheikh Tidiane pare ñëw ko wasifa astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fanweer muy benn rakk salaatul fatiha juum fukk muy ñaari rakk laa ilaha illallah téeméer muy ñetteelu rakk jawharatul kamal fukki per ak ñaar muy ñeenteelu rakk tisbaar dugg takkusaan dugg géwél mu des julli ñaari rakk Cheikh Tidiane def fa xadaratul jumaa fajar dugg suba dugg sabar dugg moo tax buñ laajee Cheikh Tidiane luy witar bi mu ne tarixa bi benn mboolem awraat yi ma tudd yëpp boo ko ciy def da ngay da mu jël fatiha bi jox ko muy witar ndax fatiha bu ci waawoon ak fatiha yi nit ñi jàng bokkul de alquran ci waawoon waa ci waawoon laa wax muy firi alquran inna sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuuna xatama Allaahu alaa quluubihim wa alaa sam'ihim wa alaa absaarihim gishaawatun wa lahum azaabun aziim ñi jàng alquran inna lazina kafaru gaa yi weddi yàlla yi lu ko firee wante woon gëmuñu ko inna lazina kafaru mooy gaa yu yàlla yu topp yàlla bu yëg yàlla ba dum ko parce que al kufru luxatan az-zulm baatu kufru ci arab ak zulmu lay firi buy lëndëm te yàlla ne awliyaa yi taxta xabaar yi sama gaayu yàlla yi sama suufu nëbb tànk laa leen denc yàlla ne kon inna lazina kafaru waa ci waawoon ne gaayu yàlla yooyu ban topp yàlla ba yëg yàlla ñoom sawaxun alayhim anzartuhum am lam tunzirhum laa yuminuuna imaanan aksara mimma amanu seen gëm dootul wàññeeku mukk biñ demee ba tollu foofu ci yàlla xadama laahu ala qulubihim ci la yàlla kaste seen xol ba dootuñu sentir lu dul yàlla wa ala samaahim dootuñu dégg lu dul yàlla wa ala absaarihim dootuñu gis lu dul yàlla maqaama boobu ni mu neexee bu leen ci yàlla génnewee wala hum azabun azim wala Serigne Cheikh dafa romb benn jàkk am kuy firi alquran nee na moom yaakaaroon ne balaa mu yëg këram ñu ne ko jàkk ji mu ne ndax kii firi alquran ñun ñàkk yi dégg Serigne Cheikh ko njëkk a wax mu ne iqra jàngkat yëpp doon ko fi yonent bi Jibril da ko fekkee ci xontu bi ko da ko iqra jàngal mu ne ëpp bi Jibril ñëw ci sëriñam poño ko da ko jàngal ñu ne Serigne Cheikh kon loolu lay mu ne Jibril dafa ñëw téye yonent bi parce que taalibe am na droit gis kilifaam mu def lu jaadu mu conseillé ko mu ne dafa ñëw di ko conseillé ne ko jot nag iqra sosal daal yonent bi ne ko bu ma sosee daara noonu laa koy tuddee mu ne ko bismi rabbikal lazii xalaq. dégg dégg parce que Jibril toog na fukki junni at xamul lu tudd. doo xool caméra waay. fukki junni at Jibril toog na ko xamul lu tudd. nee na bu yàlla soxlaa Mikaayil day ñëw na ko Mikaayil kaay lu soxlaa Azraïl mu ne ko Azraïl kaay Israfil mu ne ko kaay mais nee na. bu soxlaa Jibril yàlla day ñëw ci kanamam rek wax ak moom dem Jibril toog fukki junni ak xamul toog nee lu xëy yàlla na ko yaa Jibril Jibril nee na faa araftu anna ismii huwa Jibril ma ne yàlla ne sant ma ci xamal gi mën a xamal toog di sant yàlla fukki junni at parce que Muhyiddin Ibn Arabi nee na yàlla di ko sant boppam parce que xamoon na ne yi dañu ñëw pour sant ko te sant yàlla dafa am maqaam yàlla ne comme dinañ ñëw di ma sant te xamuñu ni ñu may santee naa sant sama bopp ba ëllëg ku ñëw jël dugg ci sant boobu lamma alima allahu ajiza qalbihi an alqiyami bi xaqiqati alhamd xamida nafsahu fi ladal niyabatan anhu wa qala alhamdulilahi rabbil alamin alhamdu googu la Maodo topp ba def ko ñaar ci dundam mooy alhamdulilahi ala fadlihi ak alhamdulilahi ala niamihi alhamdulilahi ala fadlihi muy alhamdulilahi fala Cheikh Tidiane na xamante yonent bi ñu kóllërante ñoom ñaar yonent bi ne ko maa la jur Cheikh Tidiane mu lutti fii moo tax yonent bi jur déedéet bi mu ñëwee ci suuf nag wàcc am xalifa bu am yitti maa ngi dugg ci waxtaan bi xalifa bu am yitti bu tudd Seydi El Hadji Malick ma ne mu am xalifa bu am yitti bu tudd Seydi El Hadji Malick Sëriñu Souleymane Diop bii di alxaaji Mor Diop bu Parcelles daa génne fii dem Fass ci Cheikh Tidiane